waaw tey euh, tey action bi ñu def tey action sociale la euh, ngir jàppale euh, vraiment la population yëmbaloise jàppale leen pour les besoins de la tabaski comme ni ko son excellence le président Macky Sall defee aussi partout dans le Sénégal gis nañ vraiment mu jënd ay ay ay xar. di jàppale aussi vraiment vraiment vraiment population bi donc ñun aussi ci tànk yooyu rek lañ topp vraiment di apporter suñu modeste contribution jënd ay soble euh, jënd ay euh, diwlin ak pombiteer vraiment pour euh, partager ko ak population ànd ci aussi ak vraiment les responsables politiques de l'APR Yeumbeul Sud ku ci mel ni vraiment l'éminent vraiment responsable Alaaji Modou Mbène Diop di responsable bu mag vraiment ñu ànd ak moom euh, tey vraiment mu ñëw teewal teewal bis bi donc euh, c'est tout simplement euh, action de solidarité à l'endroit vraiment de la population yëmbaloise et puis aussi lii bu ñu koy def parce que dañu dëkk ci yëmbal dafa nekk un gox boo xam ne contrée boo xam ne gox bu pauvreté entre guillemets laal la te aussi population bi aussi dañu soxla ndimbal ñu gis ne aussi maire bi nga xam ne moo fi nekk vraiment waroon na jàppale population bi tey jàppalewu leen tey euh, am na secours yu bari yoo xam ne dañ daan gis maire yi di ko def te gis nañ suñu maire bi fi nekk vraiment defu ko man damay laaj vraiment euh, euh, budget bi ñu voté pour wàllu social vraiment fan la dugg beneen aspect aussi mooy gis nañ ne xaalis bi mu ngi koy pasar pasaree xaalisu maire bi nga xam ne dafa war a jël dafa war a ñëw dem ci population bi tey mu ngi koy pasar pasaree beneen aspect gis nañu aussi ne dégg nañ ne defar na benn ma benn centre commercial tey di ko politiquer ñuy xamal population yëmbaluwaas bi di leen wax ne leen euh, centre commercial bi dañ leen di wax ne leen euh, vraiment toutes les procédures de passation des marchés publics ne sont pas respectées beneen bi aussi mooy il a trahi euh, vraiment la délibération du conseil municipal parce que conseil municipal bi tey jii dafa defoon benn délibération comme quoi a ne cantines yi dañ leen di jaayee 3 millions mais li ñu gis tey ngi leen di jaayee 15 millions de francs CFA te li ñu ci gën a li gën a écœurant mooy amul benn euh, commerçant bu dëkk yëmbal ak yëmbal waa boo xam ne vraiment tey jii bénéficié wuñu ci cantine yi donc dafa jël cantine yi sous-traité ko jaay ko ñi nga xam ne peut-être dëkkuñu sax yëmbal donc aussi vraiment ñu loolu aussi ñu ngi koy ñu ngi koy ñaawlu beneen aspect bi aussi mooy euh, loolu rek la def euh, benn benn kii de campagne ñu di wax population bi encore une fois ne maire bi fi nekk respecté wul les principes fondamentaux yi nga xam ne moom la passation des des marchés publics laaj marché gré à gré aussi bi mu def ci suuf aussi nit ñi xam nañ ko te li ko ci yitteel mooy jéem ci suutiree xaalis tout simplement te je pense que xaalis boobu mu ci am lépp tey jii waroon na ko mën a investiraat surtout ci période bi nga xam ne tey jii moom mooy période tabaski ñu xam ne population yëmbaluwaat dañu soxla vraiment ndimbal mu jéem leen a dimbali mais defu ko tey li ko yitteel mooy tabax ay kër vraiment ay oto te je pense que euh, loolu aussi war na yee yëmbaluwaay ba incha allahu rabbi ñu jëlee ko fi vraiment euh, teg fi beneen municipalité bu bees. te Sénégal li nga am ay ambition moo tax mais du loolu constat la c'est un constat euh, local et et c'est un constat parce que yëmbal waa yëpp ñoo gis ne vraiment maire bi fi nekk il e temps que mu dem il est temps que mu dem Benno Bokk Yaakaar aussi liggéey bi ñuy liggéey yëmbal si le plan social aussi vraiment tax na population bi vraiment ne ñun actuellement ñoo leen doy. mais wax mu dem daa tax mu dem taxu mu dem. waaw mais waaw mais xam nga liggéey bi liggéey bi liggéey bi wax naa ko léegi ay naxaatale woon mais léegi population bi xam nañ ne. la muy wax ak li am ci au niveau des bases au niveau de la base yaa in y a une a une différence